projet de construction d'un dara où l'on apprend à la fois le Coran et le français pour le village de Nibi, localité située dans la région de Kaffrine. L'initiative est donc pur produit des dara. 1991 lañ lañ jàppoon suñ xol ne danañ samp dara. la waraloon loolu it mooy Serigne Saliou dafa ñëwoon ci. c'est en 1991 que j'avais déjà l'idée en tête. dafa jógoon ci jóge Touba di ñëw ngir bëgg ñiy liggéey liggéeyal suñ Touba rek. te bañ a jàng. Euh, c'est un désir euh, de feu Serigne Saliou mu mu am benn kayit bu mu gis suñ tubaab di soññ am njàng jàngal alxuraan. boobu ba tey ici les services seront offerts nag sama xel ci ci laaj ñu kenn nit lenn lu ñuy def itam dañ koy def ngir yàlla rek tax. Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké ibn Serigne El Hadji Falilou Mbacké venu présider la pose de la première pierre pour la construction de cet édifice a saisi l'occasion pour réclamer. plus de considération pour su fekkee ne xool nañ ci réew mi bu dee économie bu dee lu nekk loo xam ne li ña ngi koy laal di ci laal xam-xam. Les gens qui sortent des daras sont les meilleurs et dans tous les domaines. Alors, dans ce cas, le dara aujourd'hui mérite plus de considération. Euh, école tubaab yi la wala bokk école moderne la ñu ko tuddee boo fekkee ku jóge ci daara ja alxuraan moo fay raw. les gens qui sortent sont très bien éduqués et sont très polis. moo fi xëpp ëpp xam fu mu jógee. Les défenseurs des intérêts des Dara multiplient leurs actions et les responsables du Dara Rukukoki à Djourbel au cours de cette journée de l'excellence dédiée aux meilleurs élèves de cette école coranique demandent aux autorités étatiques de prendre exemple sur les Dara avant de se prononcer sur le projet de modernisation des Dara. À moins de 20 ans, Nous maîtrisons déjà le Coran et à la sortie, nous avons toutes les peines du monde pour trouver du travail. Gérer 600 à 700 enfants sans appui, c'est difficile. Pour moderniser les daras, ça reste encore beaucoup de choses. fekk nañu ci. Le Dara est le parent pauvre de l'éducation au Sénégal, cause pour laquelle les acteurs qui gravitent autour de l'école coranique réclament plus de considération.